À la suite euh, du préavis de grève déposé à la date du 10 août 2022 et dans le cadre de l'exécution du plan d'action euh, de l'intersyndicale des travailleurs euh, municipaux du Sénégal, la ville de Thiès aujourd'hui a répondu tout bonnement à la marche nationale tenue aujourd'hui. Donc cette marche, cette marche nationale se fixe comme objectif aujourd'hui euh, vraiment de dénoncer euh, ce manque de respect et ce manque de considération euh, de la part de l'État à l'endroit des collectivités du Sénégal. Et aujourd'hui, nous, en tant que travailleurs des collectivités territoriales, nous disons non à la stigmatisation, nous disons non au manque de respect mais également euh, nous interpellons l'État du Sénégal à, prendre aujourd'hui nos préoccupations à bras le corps et nous disons à l'État du Sénégal sans délai euh, de véritablement de corriger cette injustice mhm. car aujourd'hui ces différents actes euh, véritablement va causer naturellement préjudice à la stabilité mais aussi à la paix sociale. Donc aujourd'hui, nous réclamons à l'État du Sénégal pour une revalorisation euh, du traitement salarial des agents municipaux, mais également l'effectivité de la fonction publique locale. Aujourd'hui, nous disons à l'État du Sénégal, véritablement, euh, pour une meilleure prise en charge de nos, retraites, de nos retraités, à travers le transfert même des pensions de retraite euh, de l'IPRES au FNR. Aujourd'hui, nous disons à l'État du Sénégal de nous apporter une prise en charge médicale globale des agents municipaux. Et c'est le moment également d'exhorter à tous les camarades, mais également à tous les collègues, de rester mobilisé et de rester concentré. Car dans les jours à venir, dans les heures à venir, si l'État du Sénégal ne réagit pas, je dis ne réagit pas concrètement, nous allons véritablement, drastiquement et énergétiquement passer à une vitesse supérieure. Nous, nous am ceeb bu nous li ñuy fayeeku nous ta jënd ceeb nous ta jënd dawlin nous ta fay ndox fay courant joxe dépense góor ñëpp nous ñëpp am problème Jigen ak gor nagam jigen ñe yuuxu assentement gor ñu yor jigen ñi seen kër yor seen njaboot nga di ñu seetaan jàppale wuñ ñu salaire agent municipal bu la ko wanee sa yaram daw da gis maire bu am un énorme su ñëwee su gisee salaire agent municipal yaramam day daw day ni lii ngeen di fayeeku fitam day njëkk a rëcc bu dee maire bu baax loolu lay njëkk a def day tiit lii ngeen di fayeeku mais ça c'est pas normal mais fan la ñuy jaar ah ñu nii di xeex benn affaire boo xam ne yàgg na ah suñu statut bi depuis ñaata at fonction publique locale day depuis combien d'années ba fonction publique locale bi euh, euh, gis bisam mënta fexé ba judd ah il tarde à voir le jour mënul fexé ba mu à chaque fois ministre bi ñëw na CRD def lu wër collectivité locale yépp ta dara lepp naax ñuy dox ci dëgg di dox ci yoon askan wi agent ay ay salaire yu dérisoire ah jàppale wuñ ñu dimbali wuñ ñu dañ a jàppale maire tamit jàpp ji dimbali agents municipaux yi nekk ci seen i maire yi dooleel leen jàppale leen ñuy interpeller chef de l'État nag ci yokk bi nga xam da koo yokkal ñëpp mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk nañu respecté agents municipaux yi nañ leen respecté nañu respecté nit ñi te xam ne agents municipaux yi ñoo yor dëkk bi lay doxal dëkk bi la am majeure partie ci ñoom lay jógee